ndax pas pour ranger derrière un candidat c'est mal connaître la démarche coalition bi nga xam ne depuis neuf mois On ngi liggéey liggéey ci turu Benno boko yakar élargi à la mouvance présidentielle et aux forces vives de la commune de Rufisque d'abord le def meeting investir ñu def assemblée général ma nangu investiture bi si kanamu min imam yi kanamu délégué de quartier yi kanamu femme yi kanamu mouvement associatif bi kanamu leader yi fi toog yëpp signé donc tey ne dama war a ranger fekkoon ne nag c'était un jeu démocratique ñu def ko fii tënkee ñu gagné ma démocratiquement par rapport à la compétition interne bu boobaa nag dinaa nangu ranger wu parce que nag doom mbooloo mooy doole. mais nag toog di liggéey ñu xamul luy nous xamul lu tëngeej taxawé ñu bëgg taxaw xalaat né diw moy candidat am nañ ci droit mais ñun fi ñu jaarax président Macky Sall ci parcours du lolu moy tax ñu bayyi suñu engagement pour risque. nous sommes dans la coalition Benno Bokk Yakar mais nous avons choisi le chemin de la vérité chemin de la vérité bi mo ñu indi tay pour nous dëggal suñu bopp si li nga xam ne ne ñun ñëpp de nañ mënoon naa jël solution de facilité mais def 7 sept ans à la mairie à la au conseil départemental 7 ans c'est comme deux mandats j'ai d'autres défis à relever défi à relever c'est refus. caution bi de faire defar mon moo ko Altiné, altine su neexee sunu borom dañ jël suñu chèque certifié dem caisse de dépôt et de consignation déposer la coalition Bolo Defar Tengue pour aller aux compétitions communales de Rufisque département ma ne ñaari candidat benn boo ko yaakaar amu fi benn candidat moo am taxaw ma kan la ñun laa wax suñu candidature candidature Booloo Defar Tengue terewul ñu sommes président Macky Sall selon nos convictions politiques j'exercerai le mandat de président du conseil départemental mais dans la logique des élections locales cheminement bii ñu jël Nous si tey ànduma si kolom demba yi ma nyonyo lay si sen gis-gis Tahawai yalla